tey nag dañoo ñëw fii rek pour xool euh, li nga xam ne moom la artisan yi waajal exposé ko fii waaye bés bi euh, suba la borom bés bi aussi suba lay ñëw donc ñun da ñëw ex justement pour ñëw rencontrer acteurs yi xool aussi ni nga xam ne noonu la ñu waajalee euh, bés bi donc loolu moo waral suñuy suñuy tànk fii fii tey li ñu gisagum nag dal na suñu xel. gis nañ ne euh, exposition vraiment mu ngi produit yi mu ngi amélioré wu ndax euh, quantité bi lu mu bëri bëri bëri te amul qualité aussi li ñu soxla duñ ko am mais li ñu li ñu gis fii tey ñu commencé ko di ko par rapport ak édition yu njëkk yi xam nañ ne avancement mu ngi am te bu soobee yàlla dinañ ci taxaw aussi mu gën a am mu gën a gën a jëm ci kanam dégg nañ bu baax soxna si Fall li mu fi wax léegi li mu wax léegi ci seen i doléance ak yu demee noonu. incha allah loolu yëpp dañ ko tënk suba bu soobee yàlla dinañ ànd ak kilifa gi ñëw fii ngeen fexe itam ba ni artisan yi te teew fii bu soobee yàlla itam doléance yi ñu fexe yëpp dinañ ko porter gaa waaye nag moom moo ñu gën a placé pour mën a porter lépp loo xam ne lu jóge ci gouvernement bu Sénégal la pour jëm ci askan wi. Euh, dégg neen lu ñuy wax parce que liggéey bii ku ko gis nga xam ne ne doomu Koupantoum mi ñoo ko liggéey kon loolu vraiment xam-xam la. kon des na mérité na ñu jàppale leen euh, wax dëgg yàlla le conseil départemental amoon na benn kii bu ñu signé woon ak IMSEC boo joxee fa 2 millions pour ñu jàppale jigéen yi mais finalement boo léegi affaire bi doxagul mais le conseil départemental bu Koupantoum ak bu Tamba signé na convention avec ADL mooy bu Malal Camara jiitee ak Crédit Mutuel je crois commission bi mu ngi siy liggéey foog naa dinañ def pexe ñoom tamit suñu ñu amee seen i projet ñi mun a jege commission yi mooy ñoom Tidiane ñi vraiment su loolu euh, commencé ñi mun si am ay financement loolu moom vraiment ñun conseil bi dinañ def garantie ñun incha allah dinañ verser mais dañoo bëgg tamit jigéen yi ñi indi seen i projet ñëw déposer ko au niveau du conseil mu nga xam ne ne liste bi bu ñu koy yëbbu jëbbal crédit mutuel ñi mun a ñoom tam bénéficier ay projet te encore toujours euh, lu may ñaax askan bi rek euh, am même préfet tey wax na ci DER bi DER bi vraiment day gën a yokku mais il faut nit yi taxaw ñu nga xamante ne jotoon neen ñu mun a ñëw di fay te suñu fayu rek day indi ay jafe-jafe kon vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax monsieur le président te xam naa ne incha allah maître Sidiki Kaba tamit ñu ngi koy remercier parce que yow ànd neen ak moom ba Medina Gounass foofu la la ma lay wax affaire festival bi bon nga jàpp si te xam nga ko bu baax te nit ki su defee lu baax soo toogee da nga war wax ne diw def na lu parce que maître sidi kaba mooy parrain bi mais délégation bi bu mu jox na 8 millions kooku xam nga du lu ndaw le budget du conseil départemental C'est 10 millions Moi, mu joxe 8 millions kon xam nga ne def na macha allah ministre de la culture 2 millions Je def kon xam nga moom lu mu def macha indi 2 tonnes chèvres. indi ñi 417 xam nga kooku macha allah kooku lu mu def li diñ ko war a wax diñ ko war a wax askan département bi ñi xam ne ne si di Kaba day jàppale askan bi comme ni ko président waxee kon bu fi ñëwee dinañ ko indi boo fii mu xool fii lu ngeen seen problème ngeen wax ko parce que bu baax la ku bëggu région bi la mais vraiment pour mu mun a jàppale jigéen ñi